Yalla. waaw léegi Barthé du du du. ma ne Barthélemy Diaz, yàlla a dit Barthélemy Dias à un tel temps. il sera maire de Dakar il sera maire de Dakar. qu'il pleuve ou neige qu'il vente même si des missiles hypersoniques ont été arrimés pour détruire Barthélemy Diaz, nul ne pouvait contourner le destin que Dieu a déjà tracé pour Barthélemy Diaz. c'était ça. gis nga Aduna, soo bëgg suñ bëggee duñ sonal suñ bopp duñ sonal suñ xol yi suñ duñ sonal suñ xel yi nañuy wax li nga ne lool loo ci mooy lan yàlla lu mu ci doomi adam mënu ci tous l'épopée de Sundiata Keita keta soko lire il a dit que tu seras roi tu seras malheureux et ni personne n'y peut rien. yalla waxone ne hmm. Sonko sax dafa waroon jang ci li leçon leçon bu garaaw mom ci boppam ku ko yeewoon juróom-ñaari fuk yooni goudi ne ko do mos a donne président Diomaye moo nekk président. mais tay le fait que sénégalais yep monam parti Pastef surtout.

mais aussi il faut il faut il faut ngeen nangu dara honorable état bu fi mënta jaar de Senghor à nos jours euh, ñi nek euh, au pouvoir ñoy am majorité à l'Assemblée nationale. loolu nak xam nga élection su donte bi mom Sonko ñaanon na ni wuñu majorité. déglu yalla yalla mo su def Sénégal ñu def élection présidentielle ñu gagné premier tour. C'est une première fois dans l'histoire et ce sera une première fois nga gagner au premier tour do am majorité assemblée nationale. léegi loolu. maa wax ci 6 mois. malako <laughs> wax bindal teere bindal malako wax ce n'est ni du fétichisme ni du charlatanisme. mais c'est des réalités politiques c'est des réalités politiques ils sont en train de se dessiner comme ça ce sera la première fois dans l'histoire politique du Sénégal les traits du pouvoir n'auront pas la majorité à l'Assemblée nationale. Hmm. je te le dis aujourd'hui et je défie quiconque

n'y président Amar Ba président président peu importe waaye lii am cette fois ci Dieu. Il y a la Sénégal vaar nañu comprendre ñu nous Sénégalais bëgg Sonko de président est honorable Dieu moo de. <laughs> ah le mën na lu <laughs> ah, de. Euh, personne personne. non non non non gis nga li nga xam dañ ko dañ ko construire déconstruire depuis l'antiquité te ñoom xam nañ luñ construire c'est déconstruit parce que la vérité est là ñaata ngay gis ci na ñaata dem na ci assemblée nationale mu képp wax assemblée nationale soo ko majorité majorité opposition dañu mi

d'accord ñu tëjee pour que les finances publiques. ñu tëjee ko redresser. Les finances publiques, ngay wax gis nañ ni DER mu ngi mu ngi ngi demander à ce que ñu inscrire dem demander fa pour ñu ñu financer leen pour que les mën puissent travailler... c'est à féliciter. non man gëmma loolu. ah. mën a liggéey ku bëgg kuy créer liggéey du daq du daq ay CDI Birame Souleye lu mu def. man il s'est justifié non. y a pas de justification. CDI c'est un acquis reconnu par la loi, par la législation du droit du travail. Et même fekkee a des prestataires si la a des de services, ñu am des contrats. dafa war a daf leen parce que c'est des sénégalais comme tout le monde mais je comprends pourquoi le ministre Samba euh, je ne sais pas le ministre de la santé euh. bi CV bi ngeen jot na ngeen xool ndax Pastef la ndax du Pastef. ce qui est grave ce qui est gravissime. est-ce que ne ku ne ñoom lu ñuy dàq pour waa Pastef am am am liggéey la ndax ñooñu nag fu mu nekk ne sont pas des Sénégalais qui doivent avoir du travail qui doivent se vêtir qui doivent se nourrir qui doivent nourrir leur entourage et qui doivent subvenir à leurs besoins. waa lu jiw boo jàmm mu nga def la port di def lu ko neex di je m'en foutisme la nekkee port kii Lonaas Toussaint Manga ne foofu di fontu nit ñi. Hmm. di daqe CDI Biram Souleye ne fi def di n'importe quoi di yàq ay emploi sénégal ay ay ay sénégalais yow fi nga wara créer ay emploi ngay daq ay emploi so waxé da dangay créer emploi emplois kan lay gëm qui peut croire à ça. Mhm. man de ku mu neex na nga gëm mais man je n'y crois pas honnêtement parlé.

gërëm waa Sénégal 5 ñoom ñëpp. Mhm. waaw di encore ziyaare suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada di ñaanal Sénégal yëpp diam ak salam di ñaan yàlla suñu bor bi ñu mën ko fay ci diam ak salam non tous les pays au monde sont endettés. il n'existe pas un pays au monde qui n'est pas endetté ni la les États-Unis d'Amérique. ni la France ni la Chine il n'existe pas un pays. waaye Macky laaju ñu woon nag kii Sonko. déedéet dette bi Macky Sall dette dette bi depuis 5 ans là ma depuis ans là bañ buñ défé politique d'ajustement structurel. Hmm. ba Abdou Diouf. le DRSP 1 le DRSP 2 le SNDE.

<laughs> waaw yo, waxi naxasaan naxasaandang yo yow ngay gëm fii kenn fayul état mooy fay état mooy leb état moy fay état nag mom mom a à travers de son ministre des finances mom moy xool nag yan pa yan yan canava lay utiliser pour mën gérer la dette intérieure et la dette extérieure Le loolu c'est là. d'accord loolu ça c'est les compétences du ministre des finances de du planificateur di di di di ki nga xam ne moo yor gafaka réew kooku mooy xam lan la war a def ba li nga xam ne moom mooy problème économique Sénégal mu redressé ko. d'accord ma bàyyi la nga ñu rek ba. donc <laughs> non mais ñooñu suñu wax ne fay fii la ñu wax ne Aliou Sall dafa dafa dafa lekk a joxe ah, gis war na ko jox 400000 ñoo wax ne Macky Sall fii la branché ay

Que pour am at audace saga wajuram kooku dina am audace saga la képp ko am audace wax ci khas wajuram kooku dina am audace khas la Que pour ko xoti wormam kooku day am audace xoti sa worma nagn def le tout pour nek ay sénégalais yo xamanteni on est des sénégalais républicains nous devons être des légalistes être des républicains avoir un langage modéré avoir un langage non ordurier arrêter d'intimider les gens arrêter de, de, de, d'être, d'être, euh, d'avoir un, un comportement renfrogné. Nous, on est au Sénégal. C'est le Sénégal qui nous anime, nous tous. Et quel gagne le Sénégal Nous voulons que le Sénégal soit issu de la haute, de la haute, de haute nation. Mais on ne peut pas ici le Sénégal avec des injures. On ne peut pas ici le Sénégal avec la banalisation du parjure. On ne peut pas ici le Sénégal avec la note des promesses. Le Sénégal ne peut être issu que par des réalités, par du réalisme et par des fondamentaux et par le respect du bon voisinage. Toute personne maintenant qui fera atteinte à, à ce socle nous verra sur son chemin. Et le président Macky Sall, il est là et il va venir pour réglementer la vie, réglementer la mauvaise économique du Sénégal. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous lui souhaitons la victoire. Et ses enfants sont là, ils resteront toujours des sentinelles pour assurer la relève et pour assurer et garantir la victoire. sàll ngaari ci réew moo fa nekkoon ñu koy jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne yéen ñu doon suivre ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen di remercier honorable merci beaucoup di leen ne lay demee chaque lundi euh, mercredi soir ak vendredi soir dama leen di indi li nga xamante ne moom mooy seen émission bi nga xam ne moom mooy bonsoir Sénégal ñu waxtaanee actualité bi bonsoir Sénégal nag da ngeen xaar ku nekk képp koo xamante ne am nañu yaakaar chers non euh, téléspectateurs dañ lay daal di teg fii donc nii lay demee saa su nekk c'était Zeyna c'était Ali restez connectés programme yi Sénégal 5 dafay daal di continuer